bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu eh, mbokk yi bi mooy ñetteelu bind bi ci bind yi ñu jagleel leeral luy wéetal yàlla lu tax ñuy jagleel wéetal yàlla ay bind yu bari di ko leeral sabab bi mooy yàlla day dadul nangu benn jëf lu dul bu fekkee ne nit ki koy def dafa wéetal yàlla ba pare wéetal yàlla mooy li nga xam ne feek nit ki defu ko ay julleem baaxul ay wooram du baax ay tudd yàllaam du baax aj màkkaam du baax lu mu mën a def ci lu baax yàlla nag yàlla du ko nangu li feek defu ko mooy li nga xam ne bu ko nit ki deful yàlla dafay araamal ci moom àjjana mu ne innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna képp ku bokkaale yàlla day yàlla dafay araamal ceewu àjjana li ñu njëkk a wax léegi moo di ne ne ay jëfam du baax yàlla moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin boo bokkaalee di say jëf yëpp dana sippi sippeeku mooy yàlla yàq lépp te da nga bokk ci ñuy perte daal di waxaat ne walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yaamaluun dafa tudd foofu yonent yu bari daal di nag ànd ak loolu bu ñu bokkaalee day lañ doon jëf yépp dana yàqu mbokk yi mbir moo xam ne nag foofu la toll nga xam ne feeg defoo ko yàlla du nangu say jëf boo jëfoon ba pare ñëw bokkaale la nga jëfoon yépp yàlla da ko yàq dutu ko nangu kon lu ñu war a laa biirante la mbokk yi ñu bari danañ bëgg lool ñuy waxtaane lu jëm ci ngëneel yi nekk ci tudd yàlla ngëneel yi nekk ci julli ngëneel yi nekk ci woor ngëneel yi nekk ci sarxe fekk nag yooy yépp la ci ëpp solo fa yàlla mooy wéetal yàlla nit ki toog di tudd yàlla suba ba ngoon jot naan laa ilaha illallah allahu akbar wala di wax la may wax fekk mi ngi def genn ak bokkaale genn genn lum tuuti tuuti loolee muy wax lépp yàlla du ko ca bindal dara dara dara nit ki toog suba ba ngoon jot di julli fekk mi ngi def dara dara ci bokkaale julleem googa yépp yàlla du ko ci bindal dara dara dara kon ki nga xam ne bëgg naa ay jëfam yàlla nangu ko jëf yooya yàlla bindal ko ci tuyaaba yu bari fi muy tàmbalee mooy ndab li muy def jëf yi mbir mi dafa mel ne nga ñëw ci robinet bi di tànq ndox ba pare indi siwo bu bënn ndox mu ci dugg day génnaat dara du fa des kon ki nga xam ne dafa bëgg a yóbbaale ndox nga xam ndox la bëgg yóbbu buy ñëw day fexe ba indi siwo boo xam ne benn bën bën nekku ci bu ko defee booy ubbi robinet bi rek boo toogee ab diir sa sewo fees nga daal di jël yóbbu kon wéetal yàlla mooy siwo bi ngay def say jëf bala ngaa sonn kon ci jëf njëkk la sonn ci wéetal yàlla ba pare bu sa wéetal yàlla baaxee nga door a góorgóorlu ciy jëf waaye bu baaxul gul sonnal foofu taxawal foofu mbokk yi lu aju ci wiital yàlla léeg-léeg mën naa am nit ki bu koy déglu kase ji ci aju léeg-léeg ñu laal tomb boo xam ne xolam di yëngu fipp wala moom ci bopp mu ne ah waaw kii nag li wax waaw kay foo dégg tomb buñ ci laal sa xol fipp taxawaatal foofu tuuti foofu taxawaat fa arriéraatal wax ji dégluwaat ko dégluwaataat ko dégluwaataat ko lu tax ñu wax loolu moo di ne mbir mi dafa mel ne saaru appareil boo xam ne day seet jàngoro ci yaram bi médecin bi bu lay faj appareil boobu mu yor di seet jàngoro ci sa yaram fu amul jàngoro appareil bi du signaler dara waaye fu am jàngoro fu mu jaar ne tiit tiit tiit yënga yëngatu kon rik bu appareil bi sonné rek bu dawale sa loxo woccal foofu xamal ne jàngoroo nga foofu nga taxaw di ko faj bu yàggee nga tegaat appareil bi xoolaat ba xam dana sonné waat bu sonewaatee jàngoroo ngi foofu bul jàll mukk te jàngoro jooju dañul parce que appareil bii li muy seet day mooy jàngoroy bokkaale lay seet léegi heure boo gisee ne am nga problème sàngam ci masala sàngam rek foofu kon taxaw fi gën a la gaaw gëstuwaat ci jëm ci jàngaat ci jëm ci laaj boroom xam-xam yi ci jëm ci alquran ak alxadis ba faj boobu boo ko fajee nga door a jàll ci bi ci nga door a jàll moo gën kat nga ñëw tàmbalee déglu ñu agsi ci benn masala nangam mbokkaale la xol bi tëb mais i eh, boobu bokku ci daal di fipp nga ne bàyyi naa du ma continuer kon mi ngi mel ne yaa ngi doon teg appareil bi pour seet ba xam ba lii ñuy seet nekku ci mu sone la nga mere appareil bi sànni ko booba mënoon nga caa jariñu te fekk yaa sànni la lay njariñ la lay jariñ mbokk yi bokkaale dafa nekk mbir yu sew yoo xam ne wallahi léeg-léeg da lay jaaxal sax loo xam ne masalan nit ki mën naa nekk ci xam-xam di jox xam-xamam waxtoom yëpp xam-xam nga xam ne ci xam-xam rek lay jàng ñu ne am na ci ñaar fukki at ak nangam moom lay rek lay jàng suba ngoon benn bis mu toog ci kanamu sëriñ di jàng ñu agsi ci masala moo xam ne moom day xoolaat boppam apparem soné maanaam masala mi da ci xool boppam apparem soné war ne ko ah lii mu wax de ba problème mbokkaale bi yow am nga ko ko yow xadis bii tey ji lii mu signalé nii sa appareil sone na wane la maanaam yow am nga problème bokkaale fii xoolal koo xam ne masalan ñaar fukki at jàng na ko wala lu ko jege nga xam ne xam-xam bii ci lay ci lay gëstu toujours xam xadis yi ci root ak yëpp mooy mooy domaine am ndekete woote mbir mu sew a ngi nii woo xam ne bàyyiwu ci woon xel tey jii la ko door a jàng tey la ko door a xam apparem door a sone ne ko gis nga roq boobu noonu jàngoro ji mi ngi fi woon moom yëgu ko woon yëpp ñaar fukki at yi mu toog di ko jàng bu dee ne loolu mooy am te toujours muy am ah mbokk yi kon ku ne war nay bàyyi nag appareil bi seet ndax jàngoro ji mi ngi ci yow wala nekkul ci yow te bu ci nekkee jógal pour xeex ko mu dañ maanaam daal bul nangu moom mukk di taseeg sa borom te fekk dara ci jàngoro ji mi ngi ci del nangoo dañ ba seet wecc ci jàngoro ji léegi nag lépp loo ci yëg ne ah ndekki bii ci la woon jaayanteel sa boroom ne lii moom day dañ duut ci nekk bul taxaw mukk di fipponte naan bii moom mënuma ko cee bàyyi waaw parce que bii moom moom maam yi bii moom baay yi bii moom nijaay yi bokkaale moom léegi ci yëg ne mi ngi ci yow fexeel ba du baay du yaay du maam ku ca mënoon a nekk yow da nga koy bàyyi mën naa am ay baay ki yaay ki maama ki nijaay ñoom it dañ ko yëgul woon ay nit ñu baax lañ woon ñoo xam ne ndeysaan yàlla rek lañ bëggoon waaye yu baree bare bare nag dafa laajum njàng nit ki door koo xam tey ci wàllu àdduna rek dañuy fekk suñuy baay ak suñuy yaay ak suñuy maam suñuy nijaay ñu ci doon doxale noo xam ne tey dañuy dem ba turwe ne ndeke loolu njuumte la woon nañ doon tabaxe tey ñun duñ tabaxe noonu parce que xam nañ ne jamono weesu na ko boo ko tabaxe woon nit ñi dañ lay yu bari yuñ daan def yoo xam ne tey jii ah médecin yi boo ko defoon dañ naan la lii baaxul ci wér gi yaram kon njuumte la woon noonee ñu daan amee njuumte ci seen mbiri àdduna asku maanaam mbirum diine mi nga xam ne moom dafa laaj jàng mu xóot rawatina nag ñoom seeni jamono yu ci baree bari ci njàng daa tësul woon sax far kon nit ki bu mu aj diineem ci ay diine baayam wala diine maamam wala diine nijaayam aj ko ci jàng mu wóor moo xam ne da koy teg ci xam lan la yonent bi doon wax lan la yàlla doon wax loola na fa fas yéene koo jëfe ñaw wuuteeg moom ah nga jàppal leen nga am jàpp ne mbir ma daa agsiwul ci ñoom ndax kat nit ki kat mën naa dund ci milieu yoo xam ne njàng dana fa raar raarin moo xam ne mën nay tàbbi ci xeetu bokkaale yu rëy te sax bu faatoo yàlla jéggal ko parce que xamul bu dee nag ay saxaaba ñoo de man bay tàbbi ci lenn ci xeetu bokkaale yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di leen waaye nangul leen nga loola mooy ndax dañoo jóge woon ci kéefar ñëwaa ñëw ci lislaam moo tax yooyu duñ ko xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas di dem ba mu jàgg mu romb ak garab yéefar yi dañoo amoon ay garab yoo xam ne moom lañu daan tuddee zaatu anwaat mooy dañ fay ñëw di fa wékk seeni jaasi ak di fa teg seeni ngànnaay jàpp ne loolu garab gi daf leen di barkeelal ngànnaay yi léegi nag yonent bi sallallahu alayhi bi muy dem yenn yéefar yoo yenn jullit ñoo xam ne dañuy door a dugg ci lislaam maanaam xamaguñ dëgg-dëgg luy pas-pasu lislaam ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow it defal ñu ñu nit garab goo xam ne mooy zaatu anwaat mooy garab yooyu nga xam ne dañ dañ ciy dem ñu nit wékk fa suñuy ngànnaay ngir suñuy ngànnaay barkeelu ba bu ñuy xeex macha allah ñu mën a gañe xam nga loolu pas-pas bokkaale la yonent bi sallallahu alayhi wa dafa kàbbar daan ne yéen de wax ngeen la nit yi Moussa ya waxoon Moussa ne ko defal ñu xëram wu ñuy jaamu comme ñoom li ñu amee xëram léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu daf leen jàngal wan ne leen lii ak bokkaale la daal leen di bàyyi waaye génnewu leen ci lislaam parce que lu tax daleen leen a jox ngànt ndax ñii dañuy door a dugg ci lislaam xàmmee guñ pas-pasu lislaam kon it noonu lay amee it ci biir jullit ñi ñoo xam ne danañ dem ba mu yàgg lu bare bari ci pas-pasu lislaam day raar ci ñoom ñuy mën a demaat bay dugg ci ay bokkaale yu réy réy te duñ ko xam waaye nag loola de mën naa am yàlla jàppal leen ca ngànt bu fekkee ne xamuñu rek te jàngaluñ leen amuñ ay jàngalekat yu taxaw di leen ca leeral waaye nag bis bu yàlla dogalee nag nga am ku jàng ba xam mbir ma ñëw taxaw di la ko leeral yow sa ngànt jeex na léegi la sës nag mooy jéem a la réparé loola ba boo doo taseeg yàlla ca loola parce que kat boo ko xasee résulté ñu ne la lii bokkaale la wax la ko ba mu leer indil la firnde yi ba mu leer nga ne man nag ci laa nekk amatoo ngant ci kanam borom bi tabaaraka wa taala bay boo nga xam ne boobu moom yàlla dala koy jàppe sa yàlla bëggatul sa dara ba keroog ngay pare ngay ngay dindi ci loola kon rick mbokk yi bind yii nañ koy déglu bu baax lu ci nit am problème ci xolam ñu agsi ci mbir moo xam ne moom xol ba jóg na na taxaw foofa di ko xoolaat di ko réparé di ko di ko jàngaat di ko laajaat di ko ittewoo na tuub dellu ci yàlla ni ko ah yàlla de bu dee ni lii bokkaale la man di tuub naa ko génn naa ci bàyyi naa ko ndax yàlla daat koy jéggal ca saas ndax yàlla daat koy jéggal ndax kat bakkaar bokkaale boo ko xasee boo faatuwaale yàlla nee na mun ma laa jéggal de inna allah laa yaxfiru an yushraka bihi yàlla nee na day du ma jéggal mukk ku may bokkaale loolu mooy ko faatuwaale bokkaale wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha nee na nag damay jéggal leneen judul yooyu ci ku ma soob maanaam loo mën a faatuwaale ci bàkkaar bu mën ne doon bu dul bokkaale ak kéefar da ciy dugg kon euh, day day day yàlla mën na la koo jéggal waaye bàkkaar bàkkaaru bokkaale kéefar ak yu mel noonu yooyu moom ku ko faatuwaale jeex na kon mbokk mi fexeel ba bu ko faatuwaale fexeel ba nangu ku la ciy laabiire fexeel ba bu seytaane ñëw mukk nag di aw ak ci buntu bi muy aw ak nit ñi ñu bañ a dugg ci wéetal yàlla génn ci bokkaale mooy lan buntub kii day kontaan walla buntub kii dafa bañ ñu baax ñi walla buntub kii dafa bëgg a indi diine ju bees xanaa xamoo ne seytaane loo buntu boobu la awoon nag képp ku yonent doon woo ba baare ko bay ba nangu wuta ci wéetal yàlla loolu la daan wax ñooña naan leen kii dafa kontar seen mag ñu baax ña mooy seen maam ya kii di ñëw dafa andi diine ju bees ju bokkut ak yéen li ngeen xamoon kii dafa sànku bëgg leen a sànk même lay yooyu la doon jox ñooña ba ñooña taxaw lank ni duñ wuy si yonent yi ci wéetal yàlla ñoom dañuy des ci jaamu xiram dañuy des ci ñaan lu dul yàlla dañuy des ci la ñuy jaamu lu dul yàlla ba al ca layu seytaane woowu bu ko nangu mukk mu di la ko sawaat nit ki bu la woowee ci dara da ngay xool lim lay woo ndax am na firnde wala amul firnde lii alquran la lii sunna la ñoo la leeral ne lii ak bokkaale la rikk bu la seytaane yi ñëwee ca bunt yam daan ñëwee ñële naan la lii moom sa a ci nekkoon bu ci dugg lii moom ah diine ju bees la lii moom xamoo ko woon parce que boobu dong yo seytaan yooyu lay dong la am amul yeneen yu muy am amul yeneen de léegi moom seytaane na la jox lay ci alxuraan ak sunna luy wane ne lii yàlla bëgg na ko léeg-léeg it seytaane moom ay nit ñoo koy wooteel yoo xam ne ci làmmiñu seytaane la ñuy wax ñooy ñëw di la rafetalal bokkaale gi naan la lii moom bu ko bàyyi waaye buñ lay indilee lay lay seytaane yi dong lañu la mën a indil mooy sa maama ci nekkoon ah yii moom kii ñii kontar ko fi bañ wala yu mel noonu waaye duñ la indil layu alquran ak sunna loolu lu ci jar a xel la gis nga ñooñu di waxal seytaane ñëpp di la woo ci bokkaale wallahi boo faatoo doo leen gis bu ko defee nga dugg sa bàmmeel nek ci mbugalum borom mo xamne dañ ciy continuer ba faaw te ñoom duñ ko sax yëg bu ëllëgé yamal qiyam dañ lay bañ dawla duñ la sax faale motax wa qala shaytanu lamma qudiya al amru inna allaha waadakum waada alxaqi wa waadtukum fa axlaftukum yàlla yàlla moo nettali li seytaane nar a wax nee na buñ demee bay atte atte mbir yi seytaane day taxaw di discours ne yàlla de def li yéen a digub dëgg manin ma dig leen man ak tayim ndaxee mbaay daa ne nag wa ma kaana lii alaykum min sultaan illa an daawtukum fastajabtum lii benn laay amu leen ko sama kaw man dama leen a woo rek ngeen wuy si ma am andi lu ma leen woon firnde joxuma leen firnde ci alquran joxuma leen woon firnde ci sunna waaye dama leen a woo rek ngeen wuy si ma kon nag falaa taluumuu waluumu anfusakum bu leen ma yedd kat yedd leen seen bopp kon seytaane moom teel yàlla teel na laa wax fa muy yow kon ku lay woo ci alquran ak sunna ku lay woo ci wéetal borom bi rikk bu ko gàntal rikk bu ko gàntal woowu la ci boppam de waaye dalay lay woo ci loo xam ne ëllëg boo ko toppee dangay dugg àjjana moom mi la ciy woo bu ko toppee day dugg àjjana waaye bu ko toppul yow nga dugg àjjana moom mu dugg sawara kon woote bi yàlla la woote la boo xam ne danaan la kaay dugg àjjana woote la boo xam ne danaan la bàyyil loo xam ne boo boo ko boo ko bàyyee da ngay dugg àjjana waaye boo ci continuer jàpp dangay dugg sawara gis nga bokkaale gii boo ci continuer ci ci jàpp dara dara lu mu tuuti tuuti bu ci continuer du baax musiba bala ci moom waaye bu ko bàyyee gaaw jàpp ci wéetal yàlla day dem àjjana kon booba woote rikk waay bu ko gàntal mukk ndax njariñ la barakallahu fiikum ahsanallahu ilaykum waaye nañ jéem a fexe nag jéem a tas woote boobu ba nit ñi man cee jot mu doon ab laabirante boo xam ne nit ñi dañuy xamaat luy wéetal yàlla xamaat luy bokkaale ba mën jàpp ci wéetal yàlla mën a sori bokkaale yàlla nañu yàlla boole ci ñiy wéetal borom bi tabaraka wa taala musul ci lépp luy bokkaale barakallahu fiikum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu